député de la majorité tamit dañu bëgg jël initiative benn initiative de de loi euh, pour obstruer euh, les prérogatives euh, du président de la République la dissolution de l'Assemblée nationale ils ont besoin de 99 députés là ils sont à près de euh, près de 105 105 euh, députés euh, seen droit la ils peuvent le faire mais ban conséquence la nar a indi euh, ci fonctionnement des institutions. bon xam nga déclaration de politique bi man ni ma ko gisee mooy le problème de droit ne se pose pas parce que pour man la constitution n'a pas mis de délai le règlement intérieur n'a pas besoin de préciser un délai c'est une question de gentleman c'est une question de respect de la tradition républicaine le premier ministre un moment le plus favorable mais qui ne doit pas être trop pour le faire man il peut avoir un risque politique, c'est clair. Parce que euh, la tension qui est palpable fait que mun na am risque. premier ministre mun na fa ñëw que des députés euh, le en difficulté mun na fa dem ñu voté motion de censure gouvernement am daanu quoique fii su gouvernement bi daanoo le président peut le reconduire immédiatement ko def mais justement moo tax mais il faut faire de la mais yooyu da parce que xam nga fi mu nekk nii euh, démocratie fi mu ak Sénégal fi mu toll ñaar moo mën a nekk benn bi mooy escalade nga ñëw ne bon euh, man sama déclaration provisoire du ma ko def euh, ñu ne da nga ko war a def soo ko deful ñun dinañu def représailles obstruer euh, supprimer droit de dissolution bi nga leen ah bon soo leen supprimer droit de dissolution man dinaa def référendum dugalaat droit de dissolution bi mu nekk xeex loolu possibilité la. donc ñoom député yi bu ñu supprimer droit de dissolution bi par le président de la République président mun na def référendum. intégré waat article cinquante la constitution réintégré waat ko mu nekk xeex mais xeexu institution moo gën a dangereux ci réew. Hmm. gis nga xeex ci mbedd mi sax su munee ñàkk moo gën mais garaawul parce que ba dañuy toj ñu réparé institution xeex day indi blocage ci réew te gis nga blocage ci réew su amee lépp mën na am lépp mën na am. même dans les plus grandes démocraties mais tant que nag la mécanique constitutionnelle fonctionne les institutions fonctionnent comme ni ma ko waxoon sànq mu am crise ñu dénouer par le jeu des institutions diplomatie républicaine acteurs yi toog wax ça marche mais su amee confrontation institutionnelle réew mi musiba mën na fa am te dëkk yi nga xamante ni yëpp dafa am ay blocage dafa am ay problèmes après ba parfois mu am beneen force extérieure bu intervenir jël pouvoir bi blocage des la cette force extérieure intervient pour débloquer les institutions loolu nag moo tax ma ne ñaar moo am benn bi mooy représailles comme ni ñu ko gisee nii mais lii c'est l'escalade bëggoo ñëw def déclaration politique générale ñun dañuy def suñu droit de solution dañu supprimer droit de solution comme ça sa doot leen mën a dissoudre assemblée bi nga ne ah soo leen defee seen soo leen defee loolu man tamit dinaa def référendum convoqué peuple sénégalais bi ngeen xool mu nekk guerre beneen bi nag mooy lan mooy toog waxtaan le dialogue des institutions parce que gis nga démocratie en dehors de xeex élection yi su élection jeexee ba pare le reste c'est le dialogue des institutions c'est la diplomatie c'est le dialogue c'est le consensus loolu mooy démocratie xam nga ñu bëri dañuy wax ne pays africains yi mënuñu appliquer régime parlementaire pourquoi ñu ne parce que régime parlementaire dafa laaj un fort degré de consensus dafa laaj la capacité à aller vers des compromis fii ku nekk xëcc ku da ngay xëcc dëkku. mais bu ñu supprimer droit de résolution bi président de la république mën na ko attaquer devant le conseil constitutionnel. très bien mën na ñaar un na ko attaquer devant le conseil constitutionnel. mën na ko bañ a promulguer d' abord. non d' abord d' abord su ko attaquer devant le conseil conseil dira que c' loi constitutionnelle normalement loi constitutionnelle duñ ko ko contrôler révision constitutionnelle la duñ ko contrôler normalement bon mën na wax tam leneen juge constitutionnel il est souverain tout comme wax nga ko sànq wax nga ko léegi nii pardon mun na demander une seconde délibération. su demandé seconde délibération il faut une majorité trois cinquièmes des députés waaw mooy majorité bi ko voté woon da koy amaat donc il faut mu ñëwaat. bu ñu ko voté waatee. suñ ko voté waatee il est obligé. de promulguer de promulguer. s'il refuse wax. article 75 moo ne la promulgation est de su délai yi passé le président de l'assemblée nationale moo koy def mais xam nga loolu day indi guerre parce que Sénégal day indi xeex pardon parce que Sénégal mu suñu àgg niveau boo xamante ni président assemblée nationale mooy promulguer loi. te loolu ñaanuñu yàlla mu am mais soo bañee nag mu am dialogue ngay def waxtaan rek ci ñu foon ay nit ñu ñuy géle ñi ñuy géwul bi dugal leen kaso ap jow ñu toog waxtaan waxtaan ci jàmm réew mi ñu def élection ñu gagné ñu jox leen réew mi lan moo gën a grave situation boobu ñu nekkoon ba mun a tere waxtaan am fi démocratie dialogue la démocratie waxtaan la mais tëkkoonte xuloo xeex brander les muscles du Ely mais bu ñu duggee ci escalade constitutionnelle euh, de crise constitutionnelle boobu président amul possibilité euh, tamit invoquer ses pouvoirs exceptionnels. de crise ñaanuñu ko.